mbokk internautes yi jàllee nag uh, jàmm ñu daal di nag uh, wax ci uh, live bi nga xamante ni mu Ousmane Sonko conférence de presse la woote woon ca siège bu taxawu Ndakaaru ba nekkee ci diwaanu Ndakaaru moom jiital Pastef nekkit ca leader yi nga xamante ni ñoo jiite coalition Yewwi Askan Wi doon nag daal di àddu jëmale ci li nga xamante ni moom la ñuy daal di nag euh, duppee wàllum révocation gi Macky Sall tuddoon ni ki keroog ne nag maire yi day ci nag képp koo xam ne respecté woo organigramme mu euh, municipalité yi daañu la nag révoqué euh, moom Macky Sall daal di brandir ay menaces Ousmane Sonko ne yooyu la menace du ca dal ndax Macky euh, nee na dem na ba banaan kaan maa ngi xaar rek ba nga révoqué fi benn maire bu coalition Yewwi Askan Wi yow euh, Macky Sall di nga xam ba xam yow yaa ñu moom wala boog dëkk bi yaa ko moom te 18 mois moo la fi desee daanaka nga daal di nag abale te nag fii doo fi révoqué kenn moom Ousmane ko prononcé wu. ci nag kàddu yooyu lee Macky Sall daal nag euh, yëkkati euh, moom euh, Sonko met en garde le président Macky Sall ñu bëri titré seen journaux yi tey Ousmane Sonko daal di nag nekk fa sax di làq-làqal ak wiiri wiiri di wax ci menace de révocation bi nga xam ne mooy plané sur les maires yi respecté wul les lois et règlements ñeel organigramme mairie yi lee leader bu Pastef daal di adressé wu directement ci Macky Sall président de la République son excellence wax ne euh, bu Macky Sall révoqué benn maire bu Yewwi Askan Wi moom dinañ ko révoqué euh, dans les vingt quatre heures qui suivent maanaam bu dàqaloo benn maire euh, ci nag coalition Yewwi Askan Wi moom ci boppam vingt quatre heures du ko amate ca pale ba dinañ ko dàq ca biti moom nag mu daal ci wax ne même Barthélémy Dias mi day wéy di nekk maire Ndakaaru que neex leen que mu naqari leen loole nag moom Sonko dànkaafu ko kii di président de la République Macky Sall ci nag lu ñeel coowa révocation bi nga xamante ni nag Macky yëkkati woon na ko euh, nii nag ay kàddu ni ki euh, euh, moom président Macky Sall mel ni nag kuy daal di nag nekk di attaquer opposition bi ak di leen provoquer ni ñu ko xamee saay su nekk bu yëkkatee kàddu ñoom itam duñu ko yàggal sax daal di tontu ca saasa nag daal di koy xamal ni ko nag dëkk bi moom moo ko moo tax démb Sonko naam sax liste beeg liste coalition Yewwi Askan Wi ca Ndakaaru législative yi lee moo taxoon sax ak coow la ci am erreur yi ak liste ba ñu rejeté wax mu tax sax mu daal di convoqué benn conférence de presse d'urgence vingt une heures ca siège bu taxaw Dakar daal di wax nag ci enjeu yeeg perspective yi ak erreur yi na mu daal di nag amee ak lañ koy rumandaat di ko tooñ naan kaan mooy roof monsieur roof roof yi ca biir groupe WhatsApp bu conférence des leaders coalition Yewwi Askan Wi mu dëggal ne moo tey pour bi moo ko créé képp ko fa wax loo xamante ni neexu ko mu génnee la